jamono yi yëpp ñu ngi woon ci ay waxtaan yàgg na lool ngir taxawar benn coalition coalition boobu dem na ba taxaw ñu tudd ko coalition wàllu senegal coalition boobu mu jóge si man mii Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ma maa joxe turu coalition bi ko gis-gis ne si waa CRD jot na Mamour Diop Decroix ak PDS ñu dem ba nga xamante nii dem na ba si à la dernière minute yi coalition bi tas bu coalition bi tasee nag man mi nga xam maa juróon sama doom ba joxe woon tur bi war naa wax askan wi yépp fi ñu jëm fan la am si naqar rek ndax li nga xamante ni mooy naqar bi li sëriñ Muntaxa waxoon ci màggal gi moo yéen ñii di am naa seen yaakaar sa domas yaakaar jooju nag am na ñoo xam ni dañu ko jël parce que ngir seen intérêt yi bopp tax mun ñu woon a sukkandiku ci waxe Serigne Mountakha jooju ba tax na maa ngi déclarer solennellement Cheikh Abdou Mbacké Bardoli la candidat départemental bokk gis-gis man ak ñi ma àndal ndax bu fekkoon coalition bi taxaw na ñëppay ànd waaye coalition bi taxawul kon kenn ku nekk nag yaay xam ni nga toje sa bopp jinax te jàpp naa ni bu ma laajee ci département Mbacké waa Touba waa Mbacké ak commune yi war naa mën a jox ndax li nga xam ni jot naa ko de bi ma joxee ci député yi moo tax ma bëgg laaj département bi ay chancement ak ay soppiku ak programme bees boo xam ni. département Mbacké dana gis boppam ci li nga xamante ni mooy liggéeyu réew mi te ku ne xam na ni programme bi ma teg teg bokk na si fexe ba njàng mi santé bi jigéen ñi ndaw ñi ñoom ñëpp ñu mën leen a jàppale ñu mën a am liggéey mën a jàng njàngoo baax mën a def wér gu yaram yoo xamante ni jàppale leen ba tax na fi ñu jëm kenn ku nekk dañ lay woteel ngir ka jiite liste bi bu leen fàtte loolu. fii du ñu wote parce que kii dafa bokk ci parti bee muy PDS wala yooyu fii amul loolu li am léegi mooy kenn ku nekk yaay définir li nga xamante ne mooy coalition bi nga àndal wala parti bi nga àndal ak ñu nekk si ginnaaw yow mi nekk si kaw est ce que yow mas ngaa jaral jariñ nit ñi njariñ ban man laa jox wala mas ngaa jariñ nit ñi dara ban man laa joxaat. décision bi Macky Sall jël tey pour wane ni waa Touba yéen ñi sant Mbacké. yéen ñi seen waaju sant Mbàkke yéen tekkiwu leen dara si département bi jël naa ku ma neex ku sant Diop teg ko seen kaw kooku tax na ma xaraat sama tànk tubéy pour ñëw gañe département bi si opposition bi delloo ko opposition bi loolu nag bu ma ko waxee Macky Sall mu war koo gëm ndax xëy na démb déglu na samay téléphone si guddi gi ndax sama décision démb si guddi wuute nag sama décision tey mais décision Macky sàll ak li ma xalif général dina wurid wax tey moo waral lii am xalif bi nee na ma am na si yow yaakaar raful na sab liggéey dëkk baa ngi noonu kon nag yéen sama mbokk taalibe yi département bi laa bëgg ngeen teg ko sama loxo ñu teg ko si loxol bokk gis-gis ak mbooleem lu ñu àndal parti bokk gis-gis mooy dem ci département bi ak ci commune yi waaye nag ay alliés yeneen yoo xamante ne nekkoon nañ ci yeneen parti dana ñëw fekk suñu te fan yii di ñëw dana leen ko leeral ban xam ni ñi ñu àndal ñooy ñi nga xamante ñoo ëpp doole ci département bi te fas yeneen ba ñu sa àggee le 23 janvier danañu am gën gaa ngaa néew à 80 85 pour cent incha allah. li tax suñ coalition wàllu bi bokk na si maanaam ëppal bokk na si yàkkamti bokk na si ñàkk doylu bokk na si ñàkk gëm yàlla ndax kenn ku nekk xam nga ki la man bu ñu d'accord si loolu rek coalition bi du tas. muy waa PDS bokk na si ndax tey boo jëlee Touba bu ne Cheikh Abdou Bara du nekk di du nekk candidat ndax daa bokkul PDS kooku yaakaar na yàpp population bu Touba la loolu mu bokk na si du tas coalition bi man taxuma mais mbooloo askan wi nga xamante ñooñu ma tànn wax naa nekk seen candidat ñooñu ñoo tax. kon kuy wax loolu da ngaa yàpp mbooloo waa Touba bi da ngaa yàpp waa Mbacke mais du jëmmi Cheikh Abdou Bara Dolly rek la. waaw xam nga problème amul ay saytaane ñoo nekkoon si parti bi di wax ak di jaxase loolu lépp jeex na ñoom ñëpp ñu ngi sama ginnaaw soutenir sama candidature président Pape Diop wax na leen ko te ñooy àndandoo si benn liste incha allah pour gagner département bi. Macky Sall moom xam na ni bii kontaanoon na mais tey jii si guddi gi du nelaw ndax xam na ne gaynde gi doon nekkoon si département bi yeewaat na. 2017 maa ngi woon si coalition maa gagné woon 2019 maa ngi woon si coalition Idriss Seck ñoo gagné woon 2022 ñooy gagné waat incha allah jërë ngeen